xasida ji ni mu duggantee damay laajte sax ndax fukki buntu la wala benn bunt la ndax dafa duggante ba mu ëpp booy génn ci buntu bu njëkk bi muy wax ci mbëggeelam ci yonantu sallallahu alayhi te bërëb ya séq fa yonantu dëkk rek lay tudd bi mu ci pare nga jis nisba bi la muy wax ci bunt bu njëkk bi am ak ñaareelu bunt bi in ittahamtu nasiha shaybi fi adalin wa shaybu abadu fi nusxin an ittuhami nee na ko ku tuumal bejaaw dooto bàyyi keneen ndax kuy sellal ci laaye biir béjjaaw la ko le te béjjaaw nag bu dikkee lenn rekk ko indi wax la ku dee mag dee ku deewul mag dee te du ñibbi mukk moom gan googu te yobbalewul ruux mu dugg ci ñaareelu bunt bi di waxati ci béjjaaw ak bakkan fa inna amarati bissuui ma taadat min jahliha bi nadiri shayb wal haram ba muy jeexal bunt ba ne man de maa ngi lay laayee biir waaye tanewum ndax samay farata su matee it ca lañ yem samay sunna suñ matee it ca lañ yem astaghfirullaha min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi uqumi amartuka alxayra lakin ma tamartu bihi wa ma staqamt fama qawli laka staqimi wala tazawwadtu qabla almawti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi loolu nekk transition mu dugg ci zalamtu sunnata man axi zalama ila ndax ku yem ci say farata tooñ nga yonant waaw ah, koo xam ne yonantu ngay wax ne moom nga bëgg te soo jullee farataay gee tëdd nee na la nga wax du dëgg walamtu sunnata man axya dalama ila an ishtakat qadamahu min warami ndax moom xamuloon nelaw guddi daanaka daanaka bi muy jeexal foofu rek di dugg ci juddu bi te man gëm ne sax juddu bi ak muji ak buntu mujise yi benn buntu la boo xoolee ni mu présenté juddu bi da xam ne eh, kiimaan ya ca am la soxla woon waaye du taarixal juddu bi seetlu ko xam nga bim lay wax ni mu mel moom yonentu ci tedd nga ci bunt bim koy taggee bi muy jeex la lay wan ne ku mel nii ku mel nii boo xoolee juddoom na mu mel buñ la waxee ne nii la mel du la bett a jikko yi ma la wax ci moom ci yëpp nag dem na moom Buusiri ba ba ba taxaw fenn ne ah lu dul yonentu yàlla la rek baax na lu dul yonentu yàlla la baax na maanaam yàlla dafa solol yonentu limaam yëpp lu dul yàlla am gi ñi nga xamee ne yonentu dafa solol Sidi Ahmed Tijaani radiyallahu anhu am yëpp lu dul yonentam gi دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه mu ne kéemaan yi nag li ñuy bari bari li ñuy bari bari li ñuy bari bari jotuñ daraja ji jotuñ daraja ji wanne boo bëggoon xam ni daraja ji mel ak kéemaan yi tuddal turam rek néew yëpp jóg law nasabat qadrahu ayatuhu azaman ahyasmuhu xiina yudaa daarisa rimami sallallahu alayhi wa sallam ba muy pare nag mu ne la ku mel nii jaadu na juddoo mel nii abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtadain minhu wa muxtatimi yowmun tafarrasa fihi lfursu annahumu قد انظروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم kéemaani lay wax kéemaani rek lay wax waxul dara ci taarixu judd bi abaana maanaam juddoom gi rafet gi kaar moo lay wan màggaay ak teeyaay ak baaxaay ak sellaayu ki ñëw kaar kaar sallallahu alayhi wa sallam ba muy ba muy jeexal judd bi di foncer ci mujise yi ngay xam ne judd beeg mujise yi benn buntu la laa tiba yaadilu turban damma adumahu tuuba li muntashiqin minhu wa multazimi nga xam foofu lay foncer pour dugg ci ci lan ci kéemaan yi jaat li daawatihi lashjaaru saajidatan tamshi ilayhi ala saaqin bila qadami kaannama satara satran lima katabat furuuha min badii lxabdi billaqami sallallahu alayhi wa sallam bi kéemaan yiy jeex mu wan la ne la kéemaan yi ma tuddal yonent bi yëpp kat joxuñ ko daraja ndax moo leen gën xam nga yonent bi sëñ euh, baaba mucjisa yiñ ko tuddal yëpp yokkuñ ko xam nga lu tax moo ah mucjisa yiñ ko tuddal yépp moo leen gël Seydil Hajji Maalik wax na ne wal mucjisaatu lahu taadaaduha abathun nee na lim mucjisaatu rasulillahi ci la foyam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom ba muy ba muy wax jikko yonantu daf ko boole ci mucjisa yi ci buntu mucjisa yi ndax yonantu ni mel kenn mënu ni mel mucjisa rek la ah, mucjisa mooy lu lottuloo xam ñun miracle lañ koy wax lañ koy firee mooy xar baax xar baax nag bu ko waliyu wanee karaama lañ koy tuddee ndax moom yoonam new ci te sañul défier kenn bu ko ab yonantu wanee nag mu'jiza lañ koy tuddee parce que boo ko mënoon it dootoo ko mën yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bu jëloon yëkkati téléphone def ko muy mu'jiza am dootoo mën a yëkkati téléphone bi yow ndax ndax bam ko bam bam la défier rek lala la i'jaz sallallahu alayhi bi mu'jiza yi di jeex mu foncé ci mujisa bi nga xam ne moom rek moo jox yonantu xaqam ndax moom rek ëpp yonantu bi mooy mujisatul quran al karim daani wa wasfiya ayatin lahu zaharat ظهور نار القرى ليلا على عالمه فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم صلى الله عليه وسلم آيات حق من الرحمن محدثة ها mawsuufatun sifatal mawsuufi bil qidami waaw bu xaraf yi sosoo it la xaraf yay tegtele ñoom soso uñ waaw Cheikh mu ne soo ne haada alxaaitu walfaras man ma ne haada alxaaitu walfaras li ma wax bokkut ak li nga wax li ma wax dafay tegtele boo fas waa ngi miir baa ngi ak fas wa ne miir baa ngi ak fas wi li ma wax ak li nga wax du benn de li ma wax dafay tegtele li nga wax yow bi loolu di jeex nag mu dugg ak ñun ci mucjisa gii nga xam ne mooy mucjisatul israa wal mi'raaj du mooy juróom lu bunt bi su paree mu dugg si jihaad ji bu dugg tawassul bu paree mu dugg ci munajaat wala du noonu sallallahu alayhi wa bunt bi nag fukki bayt la rek ak ñett daaw nag def ne ñaar fukki minute la ñu am amaguñ ñaata minute la ñu amagum <laughs> <laughs> ah waaye ñaar fukki minit daal la ma daaw de jox xam naa bu jeexee rek <laughs> ñu taxaw waaye bunt bi rëyut fukki bayt la ak ak ñett xam nga burdatul madih wax na ne téeméeri bayt la ak juróom benn fukk waaye bayt bi ci gën a màgg ko ci gis muy mawlaaya salli wa sallim daayiman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihim ah, mooy mooy mooy mooy mooy mooy peru diggale bi ah, mooy peru diggale bi eh, rañaanu yonantu sallallahu alayhi wa sallam la ñu bëgg dafa am isra dafa am miraaj isra mooy fi mu jógee makka ba yegg baytul maqdis miraaj mooy bi mu jógee baytul maqdis ba yegg fu fu xamut ah bi mu jógee baytul maqdis ba yegg fu fu fu amut sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa xayra man yemmama alcaafuuna saaxatahu sacyan wa fawqa almutuunil wa fawqa lan mutuunil aynuqi rusumi waaw wa fawqa mutuunil aynuqi rusumi yaa xayra man yemmama alcaafuun yow yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yaa gën ci koo xam ne dégg nga way ñàkk yi xaaraankat yi wutkat yi sàkkukat yi yow mi nga xam ne yaa gën ci kuñ jublu saaxatahu ëttam koo xam ne képp kuñ mos jublu ëttam ngir soxla rek nee na yaay gën sallallahu alayhi moo xam ba ñuy dikk fañ dox wa fawqa al ay nuqi wala dañoo war ci gannaaw gëlëm yay naaga ar rusumi yey wëy dii si tànk ba bu ñuy dox dañuy bët suuf ba nga foog ne dañuy rëdd mi mina rasama yars waaw maanaam képp ku ñuy jublu moo xam ñi la jublu dañoo dox dikk mba dañoo war dikk nee na ku gën ci ku ñuy jublu ngir soxla yonantu la lu tax parce que li yàlla yore yëpp moom la ko jox muy séddale sallallahu alayhi wa sallam mu ne waman huwa yow mi nga xam ne alaayatul kubra yaay kéemtaanu yàlla gu màgg gi yonentu mooy kéemtaanu yàlla gi gën a màgg ci kéemtaanam yi parce que lim bind yëpp yonentu gën a màgg sallallahu alayhi wa sallam benn waaye waxoon ca faas ne ma lam aarif wala laa aalamu li sayidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baada alqurani mu ne gannaaw alquranul karim xamaluma yonent bi mucjisa gu gën a rëy Cheikh Tidiane mu ni ma gannaaw alquran karim xamaluma yonent bi mucjisa gu gën a rëy Cheikh Tidiane waaye yàlla yit xamaluma ko mbindeef mu gën a rëy Seydina Rasulullah waaw sallallahu alayhi wa wa man huwa al-ayatul kubra waaye nag li muctabirin li muctabirin ci kuy xalam ci kuy xalaat ku xalaat rek xam nga ne kenn du yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xam nga parce que moom rek mooy jaamu yàlla ak ah, moom rek moom rek moo tax bi ñu bi ñuy wax ne yàlla dafa am doom mu ne ah, man de gisuma ko te njëkk qul in njëkk a jaamu yàlla te fekkuma fi kenn fekkuma fi kenn wa mi nga xam ne yaay an xéewal ga gën a rëy gi nga mën a am yonentu rek moo la ko mën a jox sallallahu alayhi wa sallam kuy wut loo yéem mooy kéemtaan yàlla gi gën a rëy waaye kuy wut texe àdduna ak àllaaxira jàppal ci yonentu bi ndax mooy yoon wa yow moom de laa wax ma ne sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fi daajin min azulami wa bitta tarqaa ilaa an nilta manzilatan min qaabi qawsayni lam tudrak wa lam turamin sarayta yow dee rañaan nga laylan ci guddi xam nga rañaan ci guddi rek lañ koy def waaw lu tax mu ne laylan nag mooy def la bëgg wax ne lëf ci guddi laylan gi tegtal la waaye win bi daf lay wanne as lëf rek nag ci guddi maanaam yonentu sallallahu alayhi wa bi muy rañaan dafa génn ci temps moo tax dem na ba dikk te karaw xobi gawar xobi garab gim romb laal ko dalut dalut waaw dem na ba dikk lal boo ci toogee ba jóg dangay gis ne dafay xawalan lemu après dafay fudduwaat di dellu balaa lal bi di dellu degsi na nga xam ne nekkatul woon ci temps wala ci suñu temps boobu waaw <laughs> wa inna yawman inda rabbik ka alfi sana ka alfi sanatin mimma ta'udun yow dee sarayta min xaramin laylan ila xaramin yow rañaan nga guddi jógee ci xaramu makka jëm ci xaramu baytil maqdis nga def ko kama saral badru fii daajin min adulami kama sara nik lay albadru weer wi fii daajin ci aji kukk min adulami ci lëndëm ni weer di rañaanee ci lëndëm leeral asamaan yépp xam nga badru la tudd badru mooy fukk ñeent mooy taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa ni ko badr di defee yow noonu nga ko defee leeral fépp maanaam bu weer di jog guddi jógee penku ba soow yow moom as lëf lu matul sax seconde wala ceexse dégg nga leeral nga aalamul ghaybi wa shahadati lii mooy rañaan gi mooy israaw léegi nag bayti bi ci topp mooy miraaj ji wa bitta tarqaa wa bitta fanaan di yéeg ilaa annilta jëm ba nga àgg ilaa annilta jëm ba nga am manzilatan wàccuwaay min qaabi qawsayni ci xalaat ñaari kocc ya nga am fa loo xam ne manzila boo xam ne lam tudd rek moseefu koo jot mëneesu koo jot walam tura mi defu ko sax sàkku ba koy jot maanaam dem ba nga xam ne yaag saa borom yéen a ngi mel ni xala ak ñaari kocce foofu diggante amatu fa waaye barab sax amut fa nag xaw ma jege ga nu mu demee nag xaw ma nu mu demee xaw ma nu mu demee yàlla daal moo ko xam moom yonentu sallallahu alayhi wa ba muy dem nag balaa moo yéeg ñi ne ba mu wàccee moo tax buusiri dugal ko fii daf ko dugal ci diggante mi'raaj bi dégg nga ak miraaj bi waxuma diggante isra bi ak miraaj bi daf ko diggante dugal ci diggante miraaj bi ak miraaj bi bayt bi ndax am na ñu ne balaa moo yëg la leen jiite am ñu ne ba mu wàccee wa qaddamatka jamiu lanbiyaai biha wa rusul taqdima maxdumin taqdima maxdumin ala jiital na la jamiu mboole yen yi sallallahu alayhi wa sallam yonantu yëpp bihaa ca guddi googu bihaa ca barab yooyee bihaa ca amakinul muqaddasa ca baytul maqdis anbiyaaw yi wa rusli maanaam waxuma ñi ñu joxte waxuñ leen ñu wax wala ñu doon continuer risalatu ñeneen waaye ña amoon risala gu indépendant sax nag ca lañ bokk wa rusli kulluhum ñoom ñëpp muxtadin ànd ak wa antal imam mustawa wa taxadawta li salaati fasal waaw kulluhum ñoom ñëpp muxtadin wa antal imam mustawa wa taxadawta li salaati fasal كلهم يوم يفو مختدر وأنت لا إلا الله وتخدمت لسالاتي فصلى كلهم يوم يفو مختدر وأنت ليلة الإسراء أهلك

يهدي الصلاة كل مهتدي حتى الإمام صلى الله عليه وسلم كلهم مقتد وأنت إمامه a ñoom ñëpp di imaamoo moom muy limaan ji mu ne wa qaddamat ka jiital na la jamiul anbiyaai wa rusli yonent yi yëpp xaw ma nag nu mu demee waaye ñoom daal ñoom ñépp julli nañ ci ginnaawam taqdiima maxdumin jiitalu surga jiitalu ku ñuy liggéeyal ala xadamin ciy surgaam ñoom ñëpp ay surgaam lañ kat ñëpp ah, looloo tax ku nekk ci ñoom am fu la yebaloon waaw parce que ku nekk ci ñoom yonontu nga woon ci barab walis barab ci jamono walis jamono ciw nit walis nit yonantu nag sallallahu alayhi wa sallam mooy yonantub fépp tub faw yonantub ñëpp moom rek la yàlla yónni ci ñëpp yónni ko fépp yónni ko faw moom mooy aynu nubuwati kon bu yegsee keneen dootul nekk nabiyu keneen dootu ko nekk ala annahu la nabiya baadi sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bim leen jiitee fii ba noppi comme ñaar fukki minute la ñu am dañuy firi rek ñu bañ a sharxa war a dem ca kaw xaw ma nag kaw fii la wala kaw dem ca kaw waa ca kaw Buusiri ne ko wa anta taxtariqu sab'a tibaq wa anta yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxtariqu yaa ngi xotti attibaqa saba waaw juróom-ñaari déng dell yi juróom-ñaari yu tege yu tegle yi bihim ànd ak ñoom mu mel ni dafa yóbbaale yonent yi waa bihim wa anta taxtariqu saba tibaqa bihim fii mawkibin kunta fiihi fii mawkibin kunta fiihi saaxibal aalami convoi boo xam ne mawkib mooy mbooloo moo xam ne dañoo war convoi boo xam ne eh, kañ cay joxañ ne waajaa ngëleen ak yow waaw mbooloo moo gis am na ku ñuy joxañ waaw mbooloo moo gis dam baba dafa wax ne mbooloo moo gis am na ñu ñuy ñu ñuy gunge ñu ñuy gunge waaw mbooloo moo gis am na ñu ñuy gunge tey ji fi gisee xale yu bari di jàngi l'école ñu tuuti la ñuy gunge am na ñoo xam ne balaa ñoo am certificat bàyyi ñi balaa ñoo am dégg nga entrée sixième bàyyi ñii balaa ñoo am cmd 2 ñii ñi balaa ñoo am bac wala BFM bàyyi ñii duñ dem université wala bu ñu fa demee duñu graduate ña ca graduate tamit ñu ci bëri duñ liggéey ca la ñu graduate ña cay liggéeyit société ba ñuy liggéey boo demee dégg nga ñu tuuti ci société ba la ñuy gunge fi mu ne nii société boo gis ñett mbaa juróomi nit ya ne ca kaw la ñuy ko fay na waa société bi yëpp waaw seetlu ko foo dem rek ñu tuuti la ñu gëge ñu tuuti waaw di nga ñëw ci barab ci dégg nga ngénte am na koo xam danaa ah, sa sama xarit la su ma demul mu mere ma kii sama doomu ndey la su mere ma sama cousin la xam nga yëfi mbokk yi waaye am na koo xam ne moom yàlla rek ko fa indi ñu tuuti lañ nag ñu tuuti lañ waaw am na ñoo xam ne <laughs> dañ fi ñëw rek <laughs> parce que dañ fi war a ñëw waaw ah, parce que affaire bi zawiya bi la man tijaan laa damay dem <laughs> am na am na ñoo xam ne nag yàlla kese leen indi am na ñoo xam ne daaw da moo leen wax ne sa boo ñëw dinaa la mere de ah, ah, ñu ñëw ñu ñëw am na nag ñoo xam ne bu leen kenn waxuloon dara it danañ ñëw waaw boobu nag moom la Serigne Cheikh di wax ne yàlla nee na minoritaire la dansa sa propre majorité waaw loolu la Serigne Cheikh wax te ci alxuraan la ko jëlee alquran la ko jëlee wa qalilum mahum la yàlla wax wa qalilum mahum waaw ak wa qalilun min ibadiya shakur ak wa qalilun min al axirin zullatun min al awalin wa qalilun min al axirin mu ne yow yonentu sallallahu alayhi wasallam wa anta taxtariqu sab'a tibaqa bihim fi mawkibin kunta fihi saaxib al alami yaa ngi ci convoi boo xam ne yow yaay borom mandarga ma waajaa ngële sallallahu alayhi wasallam xam nga yonentu sallallahu alayhi wasallam Euh, fi fi rañaan gi dikkee moo am solo ci dundam ndax boobu dafa sonn dafa sonn moom yonentu sallallahu alayhi wasallam moo tax ku am lu la métti rek seetal yonent bi seet ko nee na lu leen dal rek seet leen ci man lu leen dal rek waa seetal koo xam ne balaa ngaa juddu amuloo wayjur woo fi fekk balaa ngaa xàmmee sa wayjur wu jigéen faatu juróom-ñetti at sa maam faatu ba demee ba sampu kër ba commencé taxaw dégg nga li nga jis ci mag yëpp xamoon noo koy résoudre ngay dem ci àll ba di xalaat ba sama boroom fekk la fa ne la ñett yi rek laa la sufa topp dégg nga sas nag nga jàng dégg nga jëfee li nga jàng jàngale ko ñu ne ko doo ko fi defee doo ko fi defee lor ko lu ne ñu def ko ko ba mujj ñu boycotté ko parce que mënatuñu mënatuñu dëkk moom ñetti at yàlla bañ ca jógee ci la ndey xadijatu faatu ndax mënatul tenir ci la abu talib faatu ndax mënatul tenir mu ne xaaral ma dem seeti waa taayif bokk parce que fa lañ ma yóbbu woon ma nampi lan la si Xaaji Maalik wax wa abda yaa liila masuudan xabiban ëtee ka mustajirin bi amrin min inaadihim dafay wax ba ci kanam mu ne li may nettali nettali li yonantu daj taayif moom du ma nettali laqaa la afuhu bi waaw ah, bul wéy de ndax daaw danga may def ay signe te pareeguñ <laughs> sallallahu alayhi wa sallam daaw da gis naa la de <laughs> bul wéy <laughs> bul wéy ñu yàggale bunt bi yaa ngi dégg la mu daj Taif ba mu ñibbisee yàlla ne ko nag gis nga eh, ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee déjà Taif la ko commencé wan ne ko ñee la xamut waaye sa yëf warta yem fii ndax ba muy génn Taif dafa domb ñaari doomi rabia muy utbatu ak shaybatu ñu yónni seen jaam addaas pour mu jox ko dégg nga fruit ba mu ñëwee yonent ne bismillah mu ne ko lii de dégguma waa fii di ko wax mu ne ko foo jógee ak ci ban diine bu nekk mu ne ko nii laa jógee nii na wa mu ne ko ah dëkku sama mbokku yunus mu ne ko da ko xam mu ne ko sama mbokkum yonentu la ñu xool rek gis ko muy fóon boppam di fóon loxom di fóon tànk yi ñu ne addaas mi lu muy def ba mu ñëwee ñu laaj ko mu ne leen kii yee gën ci li yàlla bind yàlla nga koy wan ne ko gis nga kii jóge iraq di la nangul xamal ne yëf yi dana dem ci zawiyatul xaaji malik ba ci new york waaw dana fa dem maanaam fii taxul laa jóg dégg nga bi muy ximmiliku fi qarnil manazili aw qarni thaalibi miqaatu li najdiyi mi sidna jibril ak si ak malikul jibal lawla nabiyu rasulullahi laxturimu bilaxshabayni walakin man na min karami bu ko woy <laughs> daaw da nee na léegi tey ñu pare dégg nga de mën na min mi maanaam yàlla ne ko asamaan nag lay déglu suuf nag buñ la dégluwut asamaan nag lay déglu waxal li nga bëgg yonentu ne ko ah man de suma sañoon nga baleen fi bu dul ñoom sax di seeni doom mu baax ba muy ba muy dem balaa moo yegg fekk yónni na Zayd pour mu wax ak Mut'im ibn Adi ndax yëg nañ ne génn na te dootuñ nangu mu dugg mu nekk ci ca wa di julli yàlla yónni ay jinne wa in sarafna ilayka nafaran min al jinni yastamiuna al quran nit ñee la déglu xamuñ la waaye jinne yi ñoom xam nañ la léegi sax li gën a li gën a gàtt li gën a gàtt damay fexe nga visiter si almalaul ala ba muy ñëw nag moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga koy wan li des ci dundam gi nan la ko war a dundee moo tax nga mën ci ngay déggee wa anta taxtariqu sab'a tibaqa bihim mooy moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy yëg dafa mel ni dafa yëgaaleeg yonantu yi parce que ba mu demee ci asamaan bu njëkk dafa fekk aadama loolu mooy lan yaa ngi nii kat waa Màkka nañ la génne ni ñooy nii noonu aadama génnee woon aadama aljanna mooy étape bi topp ci sa rañaan gi kat ñaareelu asamaan ku fa fekk dimbali leen ma bi aadamin marra isa yusufin wa xanuqi humma haaruna musa wal abi rahimi ah bi aadamin marra isa ñaareelu asamaan isa wàcce <laughs> demal demal demal siif leen daawda siif leen ko siif leen ko siif leen ko sufin hmm. waxaanu xin summa haruna musa wal wal abi rahim adumin wa bili summa haruna أسد رسال دو تعالوا تابولا قالوا لا تانا مولانا نبي آدمي مرة عيسى يوسف وخنوخ ثم هارون موسى والأمير معبدين وابن ثم أزواج منك أسأل مش لا sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu asamaan mu fekk fa Isa rek la tudd waaye Isa ak Yaxya la fa fekk ndax ñaar ñëpp xajiñ ci woy waaw xam nga loolu lu muy firi Madina ga nga kat nii ña nga fay fekk ñoorayoon reyoon Yaxya ñoo doon wut a rey ko jéem nag muy yahudi Madina loolu mooy ñaareelu asamaan si ñetteelu asamaan mu fekk fa yusufa mooy danga nga makka gii ñu lay dégg génne kat inna alladi farada alayka alqur'ana la radduka ila maadin wax nañ ne ku ko jàng buy tukki sax danga ñibbi waa yàlla mi war farataal ci alquran dina la delloo si di nga dellu siwaat makka te boo ñëwee di nga am doole ci seen kaw doole ja nag la muy rëy rëy di nga mën a fayu waaye doo fayu yusufa du la gën kat la yusufa defoon mbokkam rek ngay def laa tathriba aleykum al yawma yaxfiru llahu lakum moo tax mu ne leen keroog duma leen wax lu dul la yusufa waxoon mbokkam mi dem leen idhabu fa antum tulaqa waxul kenn tuubal mbaa ma ray la déedéet waxu kenn loolu sallallahu alayhi wa sallam ndax laa ikraha fi diin afa anta tukrihu nnaasa xata yakunu muminin nit boo ko forcé mu dugg ci diina ji def nga naa def créé nga naa feq ñeenteel ba ñeenteel ba mooy kan gannaaw kan kan la ci teg dimbale leen ma affaire yi kat bu amul waxtaan du neex déedéet du xaaroo na de xanuqin kan mooy xanuq mooy Idrissa Idrissa mooy moom la ñuy wax xanuqin vile maanaam Idrissa mi nga xam ne moo njëkk a bind gannaaw fatxu makkata dama bëgg buuri àdduna yëpp nga bind leen woo leen ci lislaam loolay loolay étape bi topp ci fatxu mooy ñeenteelu asamaan juróolu malu asamaan Haaruna gis nga Quraysh niñ la bañee ba gis la gis seen butit yi ñooyam sidi cheikh bi muy firi wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka wa quria la yusliquunaka bi absaarihim lamma samiu dikr nee na ko buñ la mënoon a dëmm dëmm la buñ la mënoon a lekk lekk la waa Quraysh te nag yow indiloo leen lu dul dikr in huwa illa dikrun lil alamin rek mu ne ko gis nga ni la bañe nii di nga ñëwaat fii bañu xam yow yay kan ndax gis nga ku ñu jekku jéggaleem baax na de mais amul valeur kii jéggaleem am valeur mooy ki jekku al afu inda al maqdura boo leen baalee fekk nga jekku leen nag luñ la bañoon dañ la ko bëgg ni banu Israël a bëggee woon Haaruna ndax dafa lewetoon waaw lewetoon Moussa na ba muy wax mu la taaxud bi lixyati wala bi rasi inni xachitu an taqula farraqta bayna bani Israil walam tarqub qawli waaw moom jàmm rek la woon jàmm nitu jàmm la nitu jàmm mu ne ko daañ la bëgg bëgg gu boo rombee foofu juróom benneelu asamaan yaa ngi fay fekk Moussa xam nga lu tax fekk Moussa Moussa laa waxoon mu dem ca baytul maqdis kàccoor ya fa nekkoon di not nit ñi mu dégg nga jëflanteeg ñoom inna fiha qawman jabbarin inna fiha qawman jabbarin te ñamu àndaloon baqar wa inna lan nadxula hatta yaxruju minha waaye yow na yi nga ànd ñi nga àndal baqaaruñ ñoo ko waxoon ca Badar ne ko duñ la wax la nitu Moussa waxoon Moussa ne ko idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'idun ñun dañ naa la idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna ma'akuma muqaatiluun soo ñu jéggile woon géej gi jëm ca barkul rimaas sax ñu ànd ak yow mu ne kon ni ma waxee woon Moussa mu xeex ak jabaabiratu yi yow it noonu ngay def moo tax xare bi yonentu mujj a xare mooy gaswatu Tabuk ruum nga ko doon attaqué ji la dajal ñu daw kan la mujja a dajal Seydina Ibrahim wal abi rahimi lu tax mu ma mujj a dajal sidna ibrahim parce que farata bi ma lay mujj a jox te moom ngay mujj a def balaa nga ma balaa nga maa wuyu si mooy xaj te ibrahima moo moom laa waxoon wa addin fi nnaasi bilxajji yaatuuka rijalan inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lilalamina fihi ayatun bayinatun maqaamu ibrahim wa id yarfacu ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samiu alalim moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam bi mu ajee ñetti weer la ci tegdal wuy ji boromam lu moo tax nit ki fa saa yooyu dox yaa ngi xam wala xamuloo sa destinée sa li war a xew mi ngi sa kanam mën nga koo gis nag wala mënoo koo gis mu ne ko yow nag nekk nga di xotti di dem kaw di dem kaw xata ida lam tada chawan xata ida lam li mustabiqin min addunuwi wala marqan li mustanimi xata ida lam tadaa dem nga ba bàyyewoo chawan am leef li mustabiqin ci kuy njëkkanti waaw képp ku doon njëkkante bu yëgee ne yaa ngi ci course bi rek mu toog xam ne yow yegg nga ba noppi mina dund wi ci jege yàlla nag laa wax lefem jege yàlla lefem jege wala marxan bàyyiwuloo it barabu yéegukaay barabu yéegukaay li mustane mi ci ay ñalgu ci aji kuy jéem a yéeg bu la yéeg bu xoolee gis ne yaa ngi ca kaw sallallahu alayhi wa sallam moo tax xafatta kulla maqaamin bil idaafati id nuudita bir rafi mithla saaxibil aalami yow bépp maqaama rek bu ñuy wax ne dafa kawe dafa fekk teewoo soo teewoo maqaama yi ci kaw yëpp nekk ci suuf lu tax mooy bañ la woowee ci rafa mooy ñu yëggati la na ñuy rafaaee dégg nga al munada bu ñuy wax al mufradul alam yeneen munada yëpp dañ leen di def leneen binaal leen wala nang kii nag la ñuy binaal ci rafa fii mahalli nasb loolu ci côté naxu bi la balaa xebee tax mu waxee noonu waaye li mu wax mooy bala yàlla woowee ca kaw nga dem ba nga xam ne yaag jibril yéen a ngi ci sidratul muntaha ba mu naan la wama minna illa lahu maqamun maalum ba nga naan ko ndax fii la xarit di bàyyee xaritam mu naan la su ma rek dégg nga ni karaw di lakkee lay lakkee nga toog rek dégg ñu lay woor naan lay yow ñëwal ci kaw ña kawe woon yëpp suufe yow rek nga kawe sallallahu alayhi wa sallam ñi kawe woon yëpp suufe waaw wolof mu ne saf loxo ca kala mbéj waaw saf loxo ca kala mbéj waaw ca kala ka xafatta kulla maqaamin xafatta kulla maqaamin bil idaafati is nudita maanaam idaafatu gi mooy lan <laughs> nañ nañ bàyyi noonu maanaam maqaamu mu nekk rek yow yaa ko suufeel ndax laafal nañ la ko waaye bañ la laafalee ila abdihi bi abdihi bi abdihi booba la maqaamu yëpp nekk ci sa suuf ndax abudatu Cheikh dafay wax ibadatu abudiyatu ak ubudatu ibadatu ubudiyat ak ubudatu ubudatu nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam ca ak maqaamul ahadiyatu kenn fekk ko fa laysa nabiyuna wala arsalu kulluhum bil mudrikina li sirri ahmad mooy ahmadiyatoom gi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne ko kay ma tafuuza bi waslin ay mustatirin an il uyuni wa sirrin ay muktatimi kay ma tafuuza yàlla nag daf laa defal lii yëpp ngir nga am ngir nga texe ngir nga tuufu ngir nga jot bi waslin ci jokkoog yàlla goo xam ne mustatirin aji nëbbu la ayi mustatirin gu mu cig nëbbu wa dégg nga de anil uyuni walis bëti wa sirrin muy mboot nga nga am mbóot boo xam ne muktatimin aji nëbbu la ayi muktatimin gu mu cig nëbbu loolu nga fay loolu lol nga fay nattale sallallahu alayhi maanaam li ko yàlla wax ne fa awxa ila abdihi ma awxa maanaam la ko yàlla yootal Seydina Moussa kawe na de waaye la ko yàlla wax yëpp wax na nga ñu ko ci alquran lii laa ko wax mu ne ma lii lii laa ko wax mu ne ma lii waaye am na koo xam ne li nga wax waxanteeg moom kenn du ci jot ndax fam la toll ndax fam la toll waa ndax fam la toll dégg nga fa xusta kulla faxaarin gayra mushtarikin wa justa kulla maqaamin gayra musdahami yow làq nga bépp puugare bokk ko kenn waaye jégg nga bépp maqaama dégg nga raj-raj loo ak kenn gayra musdahamin kenn raj lawoo ak yow wala gayra musdahimi raj raj lawoo ak kenn sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa jalla miqdaaru ma wulita min rutabin wa jalla miqdaaru ma wulita min rutabin wa azza idraaku ma ulita min niami li la yàlla jox ci daraja màgg na màgg na ba kenn mënu caa jot ku dul yow waaye jafe na dégg nga jot li nga xam ne yàlla may na la ko ci xéwal maanaam yonent bi fi nga toll yàlla kenn tolluwu ko fa waaye lim la defali defatu defu ko kenn defalu ko kenn maanaam fi mu la def defu fa kenn lim la defal defalu ko kenn wolof wolof yi yéen yéenay wax ne koo xamul noo koy def waaw waaw yonentu nag xamul yàlla xamul nu mu koy def ndax ni ko yonentu defal <laughs> sallallahu alayhi wa sallam wala yonentu mu nga bo vice versa waaye loolu yëpp nag ñun nag ñun ñun ana suñu wàll bu siri ne bushra lana ma'shara al-islami inna lana ñaari bayta ci des daaw de yaa ngi may xool rek bushra lana machara al islami inna lana min al inayati ruknan gayra munhadimi lu tax lama daa allahu daacina li taatihi bi akrami rusli kunna akrama al umami sallallahu alayhi wa sallam mu ne bushra woonaa mbégte la naa ñeel ñu machara al islami ñu ñu waa lislaam lu tax mu ne inna lana daf ñoo ñeel xarfu tawkiid inna ruknan lana inna lana ngir daf ñoo ñeel min al inayati ci inaya rabbaniya rukkunan ponk boo xam ne xëyr mën a hadimi duur muy aji mab maanaam yàlla bu fekkoon ne kuy sonn la moo sonnee suñ mbir waaw bu fekkoon ne kuy sonn la moo sonnee suñ mbir maanaam taxawu yàlla moo ñu dal moo tax ñu war a sant yàlla waaw maanaam li ñu li ñu am ñun du suñ liggéey du suñ mérite waaye li Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bañ ko waxee li taalibe mi di am yëpp ci luñ ko amee mu ne bii ci man ci man ci man waaye ñun waa xeeti yonent yi li ñu am yëpp ñu ngi ko amee bii ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax ngeen dégg bii Seydi El Hadji Malick yu bëri yool bii ملك العلام جلت عن العسر رسول الله أحمد عدتي محبته في الخلب كالنخس في الصخر منبع الخيرات يا سيد الورى تقول وقاتم نظم الأنبياء سوي الخضر وخل فها نحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الصفاعة في العسر وليس لنا في الخد في اليوم والغد منقذ سوى أجاهكم في حالة الديخ والعسر وأنت لنا ركن صوي قوي وأفسع إذا استطل الأهوال في السر والجهر أخذنا فلئس العال يخفى عليكم خياض الورى الهادي إلى سبل الخير هتاب إله على أبينا بذنون زايا لبتنا نوني صلى الله عليه وسلم به بشر وإحياء لعيسى بخال العليا نار كوني أه. bi yanqooba murtadan basiru bilutun yunajjami lxuruni dail ikna waxul kull lbaraya wananilu ma unilu bilmutlañu ame unilu ma unilu bilmutlañu ame unilu ma unilu bilmut وليد إليك نبخل كل البرايا أنيل ما أنيل بالمبين أولنينا إذ الإيجاد والإمداد منه أولنينا بيوم بسنة عين العيون أولنينا رقى وروح البراخ إلى سماء أولنينا ودان له ملائك أي دين نينا وفي الإسرار خال خير حسل أو دنير المولى فقد فخير دين مدن علينا حمد حمدا قر عيني أو دنير شفى عنا مخفى كل دين فنعمده ونشكره دواما أويك ذا الإمعال من له بدين أو دنير نبي عفو خلي عرفي مودن صفي الله سوء الخير بيني يا إلهي يا إلهي يا إلهي مودني إلهي توبة قبل المنون مودني إلهي ربنا هب لي نجاة مودني وأصلي والمشيخة والختم مودني وأحبابي وذي الإحسان مودني إلينا مع جميع المسلمين مودني مودنا وألف ضعف ضعف الخيرات مودنا من الصلوات في البر المبين مجنو سلام مجنو ذلك مجنو مجنو سلام مجنو ذلك مجنو سلام مجنو ذلك مجنو سلام مجنو ذلك ألف ألف مودنا يعم الآن حينا جمعت موطني وإن النزم يكفي ذات الأبن آف النسم حفظ حوض سجوني ما شاء الله ما شاء الله ñaari bayt rek résumé na liñ doon wax yëpp moo tax mu ne wa inna nawma yakfi za tilaabin yakfi mooy 120 mooy waaw yakfi 120 mooy 120 bayt la noonu yaa am waaw ah, yakfi doy na zatila bin fa nazmi yi nuuniye bi xifruhu mokkal ko xawsu sujooni laq aajo yi la ndax dana tax nga xam lu bari ci yonent yàlla Muhammad saai sallam xam nga li ñuy wax fii def ni wa fil isra'i qaalu xayru aslin wala xayra aslin xayru aslin mooy yonent yàlla Muhammad raal mawla gis na yàlla dafa xatafa kul xayra diini waaw moo tax mu lu gën ci meññet la fa jëlee li gën ci lim jëlee foofa ah xawma lan la de waaye julli moom jila la bokk waaw julli moom ci bokk léegi nag ba mu ñëwee nag indil ñu julli moo tax ñun bët bu set ñu war a rañaanee julli dégg nga wax ji fa ata bi xamsin qad sarayna biha biha maan kon ñu ñëpp moo tax ba yàlla mu ne lamma daa allahu li taatihi bi akrami rusul ba yàlla wooyo yonent bi ne yaa gën ci samay yonent kunnaa lañ nekk akramal umami gën ci xeeti waaw lan moo ñu ko def mooy ngëneelu yàlla wa anal fadla bi yadillahi yutihi man yashaa dégg naa benn waaye mu ne dégg nga fadlullahi moom benn dégg nga benn benn xaw ma nan lañ koy waxee benn tawqiix moo fa am mooy machiatullahi yutihi man yashaa waaye nag gannaaw ga nag doo taxaw de yaa ahla yathriba laa muqaama lakum mooy bët bu set kon dañoo war di julli iqamatu sola bët bu set dañoo war a baax bët bu set bët bu set lu tax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruna bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuna billahi alhamdulillah yàlla nañ ko yàgg burd ah déet ah foog ah ca bismillah ah bismillah bàyyi ko bàyyi ko rek benn question rek garaawul allo allo kii goro la lu mu bëgg bàyyi ko mu def ko aca ah, dama dégg sànq sa wax nga ne ah. bi muy rañaani sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa demoon jëli ji uh-huh. te bi muy dem jiite na yonent ah. ma doon laajte comme moom da doon te bi muy dem jiite na ban façon juli la jiite woon yonent yi ak macha allah question bu am solo xam nga yonentu ñu bari dañu foog ne sallallahu alayhi bim rañaanee lay soog a tàmbalee julli déedéet bim rañaanee lay soog a tàmbalee julli julli juróom waaye nag daf daa julli suba daf daa julli ngoon yonentu sallallahu alayhi wasallam da ngay dégg ñu ne biñ ko yónnee altine fajaru talaata mag day xadijatoo ànd julli kon julli moom lu mu daa def la waaye niñ koy defee nii nag bam rañaanee la am juróom yii bam rañaanee lañ ko jox juróom fukk dégg nga Muusa di ko wàññiloo te Moussa kat laa na biir di ko wàññiloo de waaye am na lu taxoon nag am na lu mu wut moom it ndax lim mëntoon a am ci suuf la gis ko ko am ci kaw moo tax bu yonentu ñëwee rek mu ne ko delluwaatal ndax moom yàlla mi muy xeñtu ci yonentu yàlla Muhammad la mënta muñ yàlla mi muy xeñtu ci yonentu yàlla Muhammad la mënta muñ moo gënoon harsh ci yonentu kii kan la ñu ne yonantu ah moom moo njëkk mujjee ñëw am lii yëpp waaye bi yonantu dellu si ak cafkaak yàlla geeg xëñ yàlla gi ci waxin ci waxin mënu ko muñ mu ngi koy delluloo rek ba juróom dégg nga mën a nag am kersa mënatul jon juróom yi lay jëli woon yi nga xam ne Seydi Hadji Malick wax na ci xilaas bi ni ko yonantu waxee ne boo ko defee am fayu juróom fukk yële waaye nag terewul daan na julli balaa moo rañaani daan na waaye yii nag bi mu rañaane la nekk juróom sallallahu alayhi wa sallam leer na yaa kon nag jërë ngeen xam naa nuyoo bi ñëpp def nañ ko maa ngi jéggalu ñu ngi jéggalu bu baax a baax dafa mel ni yëf yi gën a guddee Cheikh na Tidiane président jërëjëf Haji Daouda jërëjëf yaak euh, sama sëriñ bale Cheikh na Tidiane ci technique bi yal na yàlla yombal yëpp woykat yi nii la ni ngeen di def noonu la de leen siif rek tey woy da ngeen gan kii xanaa gan la waa gan la macha allah jërëjëf wa yuallimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubinin wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizu alhakim dalika fadlullahi yutihi man yashau wallahu dul fadli alazim مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا